xam nga gor guy goxi mooy lan jamono mm. bi ma lebalee te mënaluma ko suma bopp jamono boobu nga yëkkati eh, bis boo mm-hmm. mënoon tax nga yëkkati suma doole taxaw ku mel ni aadama taxaw na fii saaga ma net ku laal doora mu laal la léegi nag laal neen doora na samp laay fam suba ngir doora bëccëg guddi ngoon loolooy wane fidélité ak loyauté ku mel mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñi doon dooro dooro tey seen tuur la pour ñoom ñu génn sàjjal door parce que gor-gor rek la mën a doon. c'est important donc cheikh bi dossier bi maa ngi koy maa ngi koy topp lu ma ci am lu ma leer dinaa la ko ci waxal naa naa la ko ci wax parce que xam nga soo amee posture yoo am rek da ngay bëgg lépp looy wax mu mu leer la en tout cas daal mbir yi depuis démb la xew depuis aux environs de 10 heures 30 man 11 heures yëg naa ko bu yàgg 11 heures mais dama doon vérifier au niveau de la gendarmerie malheureusement jotu moon kenn pour vérifier l'information déjà maa ngi ci préparer un dossier bu ma war a traiter euh, demain ndax prête-nom yooyu ñëpp ñi nga xam ne tudd nañ ci dossier bi yor naa seen tur. muy mhm. quatre personnes yooyu ngay wax euh, jox nañu ma seen tur. li xew tey aussi foofu ci gendarmerie ay éléments ñu ngi fa woon aux alentours wax nañu ma lépp ba ci coow la fa bëggoon am au moins euh, dindi ko de justesse. parce que ñi fa nekkoon noonu nga xam ne ay xaritu waa ji leen fexe nañ ba te kenn ki ba ba keneen ki meram wàcceeku xeex nag amu fa moom comme ni ñuy waxee xeex moom amu fa waaw mais naroon na fa am nag coow naroon na fa am ndax euh, actuellement moom keneen ki moom mer na ba futt lool sax mer na ba futt lool te keneen ki ñëwoon na ba ca buntu ba ngir seet si donc bugguma bugguma tudd tur xam nga rek damay bañ a tooñ si si waaw rakki la woon rakki la rakki la ak Clara. Clara moom ko wax réew mi dañoo gaaw a man maa wax loolu. te tabaski bi day waaj a jot damay <laughs> léegi leneen li ma ciy tegu moom mooy il faut aussi cheikh bi leerlu ba xam góor ñi mi dañu si wala beneen beneen beneen problème dafa am ci yëf yi. Mm-hmm. waaw il faut il faut ñu vérifier loolu man man maa ngi koy vérifier yow jox naa la aval nga vérifier loolu. non non non loolu moom vérifié bu yàgg dafa signaloon Clara ne ci yow laa yem takk ci takk suuf moo tax Racky légalul Clara moo légal. waaw léegi te du man tey loolu man wax naa ko tey sama laay. kon yoon bu ci duggee kon yoon bu ci duggee kon bu ndaw si bu ñu ko merloowee ba mu dem ci yoon tamit nañ def très attention de. non su demee su dee jaral na ko ba mu dem ci ba ñu valider takk kii. yoon day def liggéeyam hmm. parce que benn jabar leen ko signal moom kenn rek la. waaw kon ku góor ki day am problème kon. bañ day am problème yokk ci bi mu am ni parce que problème am biir salaamaaleykum la rek des na yeneen ak yeneen. beneen plainte dugg na dégg nga na mujjee doon maire piment. beneen plainte dugg na. Mhm. dafa dugg wala day war a dugg. waaw beneen plainte dugg na ba pare. naa la wax tour bi ci kanam incha allah. waa baax na inshallah ci kanam damay dem sal ni sport après ma ngi ñëwaat inshallah yow li ngay toogee do boo sport yow foo jëmati Zeyna. <laughs> bàyyi ma sport rek tay dama pata té comme dañuy ma ak yow dañuy waji tak takkante sey bi il faut que mes sport dal nekkat ci forme rob bi man ma jot. sa sey la bëgg tass sa sey ñi lay seetaan sa gelli ne ci ligne bi la bëgg tass tas. dañuy waji a damay dem fii. <laughs> ah cheikh bi waxuma juin bi nga may takk yow it nag. Eh, déedéet musuma koo wax da nga juum kii cheikh Ahmed la peut-être cheikh Bada wax. Euh, <laughs> cheikh bi. xam nga tey nee naa sama live nee naa mun a gamele si ñi. mais Sénégal neexut a waxe ngay wax kenn du la dégg. Mm-hmm. xam nga ñu ngi naan <coughs> nee leen. Mm-hmm. ki ngeen yaakaar ne dina ñaan baat wala ki ngeen yaakaar ne moo mer sax kooku meru kan mooy ci ñaar non ñu loolu sax amaluñu importance ay ñaareel ñetteel loolu on s'en fout xaalisu réew mi nga xam ne dañ koo lekk ñun looloo ñu intéressé wax dëgg yàlla yonent bi mhm. fii kenn ay aawa yaay ay ñaareel tanta mhm. ah Dakar wax ji mooy wax ji mooy maanaam ban ponkol mooy wutal borom xaalis yi ay jigéen ñu dem ba xalé yi neex ci ñom mënuñ ci leen bay mu jël leen jara tak tak suuf kooku sor bu mag bi tamit duñ ci wax ponkal mi ki tas sayu jamburi di jël di jël fekk nit kuy say mu jël la jox la borom borom hmm genn yow genn bu neex mu jaral la tak tak suuf wala mu fexe tas sa say journaliste bu mag bi wax leen ci mom borom këru 200 millions yi yow amoo salaire man daal dëkk Sénégal dana waar waa bi yow salaire journaliste wara mana tabax keur de keur 200 millions dawal auto 50 millions defar sa yaramu 50 millions. ban journaliste. bu mag bi moom moy ko sër gaay di kan mo len indil jeeg ji ak jankat yak ñu siiw ñi man li laaj moy serigne bi ndax lolu bidiw la. léegi borom xaar lan nga wax ñu ñu bëgg ñu siiw ñi dal xaw ñoo xaw ñoo junj tuuti dañ ñuy jundu tuti ban journaliste ngay wax kon message mako man ma wax ko. ponkal mi nek deux heures moom moy jox gaay ah. yi. Hmm. xaalis bu bari bobu ngeen yaakar fu ngoy jele jëlee sor la yalla baxna na. Mhm. ko cox bu mag bi di mo len indil gaay yi di. sëñ bi do wax ci kooku. ah da ci wara wax nak sëñ bi même bu nek sa xal dañuy dem rek ci wara wax rox da ka wax. ka sëñ bi du wax ci koko koku mhm. ah, doy doori comme goor bàyyi ñu dem reñu ah. ñoom. bi du wax mom moom xanaa gisoo yang ko ci ko man mako waxal man mako waxal sama bop eh man mako waxal sama bop borom keuru 200 millions fa la jëlee salaire bobu non non moomu sëñ bi bu lolu eh, euh, da ka top ka kaay ma wax leen yéen Sénégal dama leen di expliquer ñu bëri li ñuy diwoo xeeñoowuñ ko. ñu bëri góor la wala jigéen. ñu bëri jigéen xam nañ ko du soxte dëgg dëgg wér fi nga laay wax. noppil Dakar xam nga tey. lii nga noppi. roog sa mën naa ñëw. bi day feebar day mën naa ñëw pourtant wax na lu am importance des fois kër yi ñuy loué almadi naan leen ñoo ko moom Mmh. loolu c'est pas vrai kooku ngeen di wax moom amul moomul kër gi en location la nekk. man mënumaa lire la yéen ñi la. mu ngi noonu mais tey loolu noonu euh, moomul kër gi mu ngi nekk en location wala dara Sénégal léegi loolu noonu moom moo fa nekk da ngay am xaalis am ñu lay waxal lu baax am say coog di leen may xaalis foo jëm ñu daal di mais gis nga loolu amul sens loolu amul sens. nee naa la nguur gi nguuru yàlla rek moom moo dul jeex te gis nga nguurum euh, tubaarikàlla joomaay gi ak Sonko ay xale lañ te boo leen xoolee nga xam ne faw ñu nee naa la cheikh bi ku lekkoon di nga goqi caga ji màkkaro kooba baraa jógeeg wuyu yeeg gajangeer geeg képp ku lekkoon xanaa gisoo léegi xale yi léegi ni ñu loofe réew mi dara doxatul mais rox ndaw si moom moom kër gi nag xaaral mom mom gàll bi de. dede barki yonent bi mom billahi moko mom man ma xam ki mom keur gi. xana neex na. keur 200 millions bi. waaw këram la de. su moom it defi leen ko ne len ko ne gennel génneel kayitu gi. ah kam baxna sama sama soeur sama jëkkër bi. wa sama jabar bi. naka sa dugu ta mu ngi dalax wala maa ngi ah c'est sa maison ok. mu dalax dalax. mu ngi dalax dalax man maa ngi jërëjëf. doo wax yow toppalkaa bi taka Dakar bi bu mu wax na toppkaa bi ma léegi damaa mel ni comme Dakar toppkaa dama toppkaa rek moo tax démb ci guddi sama biir bi dafa doon dëw rek Dakar toppkaa. Fatou naka mu. micro kubal toppalkaa bi. non non comme eh, nee nañ foofu bu mu fi dugg naa wañu dugg foofu man kay li ma doon laaj sëñ bi mooy man li ma doon laaj sëñ bi mooy man kay may laaj ba xam loolo biddiw la wala gars yi lu tax ñu taamu daal ñu siiw ñi. Euh, xam nga nag loolu wax naa ci ma ne leen Dakar dafa doon dëkk bu lëndëm te ku amul doole waruloo xeex Dakar ku amul rongañ danga war a teel a jooy tey am na boroom xaalis yoo xam ne jigéen ñii lañuy wër ñu rafet xooluñ ñaaw xooluñ yàq nga biir xooluñ mat nga référence nga sa biddiw bu dee siiw la booy commencé am tour ñu ñëw dugg ci yow financé xaalis bu dul jeex ci yow lekk sa biddiw bu fekkee wërsëg la am na jigéen ñoo xam ne dañuy mën dara am na yenn bis bu leen keppee ba taral leen day mel ni dañ leen dëpp luñ lijjanti juy sotti fu dem duñ am dara Amna na ci ñoo xam ne ñoom ñàkk gëm yàlla rek ñàkk mën a téye seen tubéy mais bokkuñ ci benn fétis dañuy ñëw rek tëddee leen naturellement parce que dañoo caga mais am na ñoo xam ne ñu ci bëri ci borom xaalisu ndaw yi nii om de d'affaires yi lépp lu ñuy def am na raison am na benn càngat ci barhut soo koy sangoo pour sa wërsëg ñëw da ngay njaalo te jigéen ju xees ngay njaaloo nu jigéen mën a mel bu xeesee rek baax na mais boo demoon Nigéria boori Ghana am na ñoo xam ne jigéen booy njaalool ci ginnaaw nga koy laal mais ñaata nit ñoo lay tiim jigéen nii dakaar léegi tiim sa bajo bàyyi ko di dugal ci ci ci tuun gi di la sodomi parce que loolu moo leen di may wërsëg seen jabar rek la ñuy tëddee ci kanam am na kuñ ci proposé cinq million pour tëddee ko ci ginnaaw mu bañ ñoom ginnaaw rek leen lay tëddee ginnaaw rek rek rek rek moo waral ngóor jigéen yaa bari Sénégal tey parce que bu ko jigéen ñi bañee góor jigéen yi dañ koy nangu borom homme d'affaires yu bari dañuy am xaritu góor jigéen ngir bu jigéen jëfee te ñu war koo def ñu indi góor jigéen tëddee ko góor jigéen boo xool Sénégal mu toog am na xaritu commandant gendarmerie police sëriñ homme d'affaires ministre gouvernement lépp lay dajale nekk góor jigéen bu réew boo ko ne sa bët bi suufan ci ne mu capturé ngoon ñu jël si la yóbbu ñooñu ñëpp di la jël si kenn ku ci nekk faram la da koy tëddee maanaam li ma xam man loolu laay wax am na ci benn góor jigéen biñ ko sonnalee ba sonnal ko dafa mujj daw léegi mu ngi Nigéria den ko wër wër a wër wër a wër ba bëgg a dee léegi nag jigéen ñi léegi góor ñi dañ leen di mel ni ku lay laal nii dugalal la ko foofu soo waxee ñu ne la fii moo neex ba gel yu bari di jaay suuf léegi boo leen laalee ba pare sax ñoom dañuy bëgg nga laal leen ci ginnaaw parce que miinal neen leen ko man amoon na benn jigéen boo xam ne dañu xamante mu di ma laaj ne ndax lii ma ne ko de loolu bokkul yàlla da ko xaraamal moom kay ku mënta mucc ci njaalo bàyyi muuti mu wax ma benn doomi kilifa bu mag ci réew mi moo ko daan jàpp tëddee ko noonu ci ginnaaw saa su nekk rek foofu la koy kon sacrifice boobu ngay wax am na ci deux facettes benn bi ci ay biddu ak wërsëg ak euh, rawha ak yu demee noonu beneen bi ci ay sacrifice yu bon sacrifice nekkul jàpp nit ki rendi ko sacrifice leneen la nit mën na la sacrifier ci jël xaalis jox la nii xaalis boobu boo ko jëndee mbubb balaa ngaa wér feebar boo ko jëndee woon xarte boo ko rendee feebar sacrifice dafa bëri façon boo ko defee ba pare nag dafa foo koy def am na sarax yoo xam ne sacrifice nit dina tëdd feebar ñu seetal ko jox ko ay sarax mu def ko ku ko lekk yaay feebar moom mu wér sacrifice fomm mu dee sax am na loolu mu ngi commencé si jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi maamam moo waxoon ne su amee fukki doom yu góor dafay rey kenn jaamoo ko yàlla mu am fukki doom yàlla di ko wan gént muy négligé muy muy muy bàyyi mu si biir rek mu yàlla di ko muy bàyyi rek bi mu demee pour rey Abdoulaye borom siire ñu ne Abi Lahab keroog rek la def lu baax mu ne ko xam nga lan la doo ñu indil aada bu bon aada boo xam ne tey ku am fukki doom rey kenn doo ko def ñu teg téeméeri gërëm pour Abdoulaye te den ko waroon a rey mu fomm kon sarax day fomm bakkan ci len ko fomm lolu motax tax yonentu mën a juddu waaye bàyyil yonent eh, Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam demal ci Ibrahim Ismail bim ko teur puraiko ko teure pour ray ko yalla indi xar mu jende ko bakkanam kon lima wax xam-xam la léegi nak bi lolu amé dañuy jël ay sarax yu yu bona bon xam nga fan len koy duggal ci gamoy ak magali, nga gis ben homme d'affaires doomaraam budul julli bëggul sëriñ bi du wax lu baax indi téeméeri nag ak fukk ak benn ñu ne àddee sëriñ tuuba wala ñoo ko def ci gàmmu Tiwaawoon gi wala gàmmu Medina Baay ngir Baay Ñas lañ laxas ci biir ñoom ñoo ko xam te sëriñ si dañuy rafet njort ndax doo toog toogaayu sëriñ Touba nit indil la àddee sëriñ Touba te doo ko jël léegi nag su loolu amee su nit ñi di ñibbi dangay ngay toore gis accident boo xamul fan la nekkee juróom-ñeenti nit ñeenti xale jigéen ju biir dee rek dee am na ci yu sell yoo xam ne taalibe yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko joxe am na ci yu sell yoo xam ne seen borom jaamu yàlla rek lañ ci bëgg mais am na ay sacrifice ci biir am na ay sacrifice ci biir mais nag doo ko ñemee wax parce que màggal jot tey nga ne eh, moytu leen am na ñuy sacrifier ay xar de ñu ne yow noonu Serigne Touba nga da nga bëgg nit ñi buñ ñëw màggal wala bu kenn lekk duñ la comprendre. kër kilifa xar yu ñuul yeeg bëy ñuul yi ay sarax la de. ñu ne la yow da ngaa bañ Baye Niass wala da nga bañ Maodo waaye su soobee yàlla alaku nga danga nga torox di nga xam ne nangam nangam lu ne ñu waxal la ko. léegi nag ñi xam dañuy noppi ñi xamul du tëñëx tëñëxi te bala magal di ñëw sëti serigne touba yi dañuy dajalo di jang ay kamil ak xasida ñaan yalla mucc njabor gi mucc ku oyof bop de magal nonu te gamo nonu la preuve bi corona ñewé serigne ci kenn nanguta nuyu taalibe parce que deug la dañu wara sambu sen bakkan duñu nuyu wayo da ngay juw rek serigne touba rek dem baye ñess dem àdduna doxewul noonu jullil jàppal na la sell yóbbu tàggool amal kilifa ñaanal mucc boo demee lu dul yàlla du la mënal dara nii lay demee donc sacrifice bi nga wax am na Dakar Top ka am na. Ah, ah beneen question bi yaakaaroon ni waa ji dañ ko duñ ko bàyyi feek fii ginnaaw suba mu dem. waa